fi sirrin wa ilaani ñu ngi fas yéene ànd ak yéen mbokk yu tedd yi ci suñu fukkeelu dërsu ak juróom-ñett ci téere bu màgg bi ci jawahirul maani wa bulughul amaani fi faydi sayyidi abil abbaas tijaani radiyallahu anhu li taalihu al allaama al aarif billahi tabaraka wa taala al xalifati al aazam sayidi ali sayidi ali xarazim bin al arbi barraada al faasi ñu taxawoon ak yéen ci qasida ju rëy ji mu indil ñu jëlee ci al imaam ismail bin al muqri al yamani ta iyaam bu rëy boobu yeggoon nañ fi muy waxee kalifte biha duniyan kahirun gururuha tuaamilu man fi nusxiha bilxadiati ida aqbalat wallat wa in hiya axsanat asaat wa in safat fafiq bilkadurati kalifta biha yow de soppuloo nga bakkan duna ni àdduna joo xam ne kathirun aji bëri la xururu haak worom tuaamilu dafay jëflante bil xadiicati cig wor man ka nga xam ne fii nusixiha mi ngi ci laaye biir àdduna koo xam ne waram dafa bari ba waxuma la kiy waranteeg moom waaye ki koy laaye biir sax war lay jëflanteeg yow ida aqbalat wallat wa in hiya axsanat asaat wa in safat fafiq bilkudurati ida aqbala su jubloo wallat dëddu na wa in hiya axsana su rafetalee asaa teg ca ñaawal wa in safa wa in safat ndem sell na ñeel la fasiq na nga wóolu ne bil ku duurati cig naxal la jëm walaw nilta min ha maa la qaaruuna lam tanal siwa luqmatin fi fika min ha wa xirqati walaw nilta minha soo amoon ci àdduna maa la qaaruna alal ju toll ni alal yi qaarun sama borom tudd na ko inna qaaruna kaana min qawmi muusa fa bagaa alayhim wa aataynaahu min alkunuuzi maa inna mafatixahu latanuu bilcusbati uli alquwa id qaala lahu qawmuhu laa tafrax inna allaha laa yuxibu alfarixin qaaruun alalam dafa bëri woon ba caabi ya ñu caabi magasin ya ñu denc alal ja waxambaane yu bari suñu dajee mënuñ leen a yëgati suñ leen boole la tanuu bil usbati ulil quwa mu ne soo amoon lu toll noon ci alal ci àdduna it lamtanal doo ci am si waa luqmatin lu dul ab tib fii fiika xirqati akub morso lekk ba suur solu rekk nga ci am bu sa digg jotee nga dee ba ko fi mbaa mu jeex ci diggante bi bala fi te du tee nga dee yow wa habka balagta almulka fiha lam takun li tanzaahu min fi kaayidi almaniyati wa habka waxal ne jortul ne balagta almulka fiha jot nga nguur ci àdduna alam takun li tanzaahu min fi kaidil maniyati xanaa du bés a ngi ñëw loxoy dee nocc ko nangu ko ci yow soo xamee loolu nag fa daaha wa ahliha bi qismin wa xud kada li nafsika anha wa hiya kullu lganimati fa daa nanga ko ba moom àdduna wa ahliha ak ñooñ àdduna bi qismin ci cit ci seddale wa xud nga jàpp li nafsika ñeel sa bopp bi xizmin ci cët an xaawalis ko wa nag wa xud na nga jàpp kada naka noonu li nafsika ñeel sa bopp bi xismin ci cët an xaawalis ko fa hiya loolu de bàyyi àdduna te wutal sa bopp cët budut àdduna kullul ganimati mooy bépp koom mooy bépp màng wala taxtabit fiha bi farxati saatin tauudu bi axzanin alayka tawilati wala taxtabit bul ñeewu fiha ci àdduna bi farxati saatin mbégteem waxtu woo xam ne tauudu dafay dellu bi axzanin ci ay njàqare tawilatin yéeway gudd alayka ci yow saa soo si saa soo fi bég te bégoo ko ci lu neex yàlla xamal ne njàqare yu bari la lay jural te mooy mbugalum dappeetum àllaaxira yàlla nañ ci yàlla boole musal wala taxtabit fiha bi farah bi farxati saati wala sax àdduna ci boppam mooy as waxtu rek mbégte gi nga fay bégge bégge su ko yàlla lalul rekk mu jural la njàqare yu gudd a gudd yowmal qiyaamati benn muy safaraaw dappet ci koo xam ne dee ci lu dul ngëm yàlla mbaa muy jamono ju yàgg ca safara ci koo xam ne ma nga ami bàkkaar baaluñ ko ko bàkkaar du tuuti su ko yàlla baalewut du rëy su ko yàlla baale yal yàlla boole baal balaa ngaa gis bàkkaar bu tuuti xoolal ki ngay tooñ soo fi saaga woon baa nga wax fi loo warta wax ab président mbaa ab buuru àdduna rek ci dëkk yi nga xamee ne sañu ko fa xoolal conséquences yim la mën a jural waa ndakam ndegam nag buuru àdduna rek a mën loolu mooy yi ñii mooy yàlla nag benn tuuti ci mbokk yi bu ko yàlla baalewut yal nañu yàlla baal te yal nañu yàlla dimbali ba duñ ko mën a moy yaram fa aychuka fiha alfa aamin wa yanqadi ka aychika fiha bacda yawmin wa leylati fa aychuka fiha sa dund ci àdduna alfa aamin junni at wa yanqadi topp mu jeex ka aychika fiha mu ngi mel ni dund gi ngay dund ci àdduna bacda yawmin lenn bis wa leylatin ak lenn bëccëg sa dund gi boo fekkee ne mat na junniyaat gannaaw ci jeex la jëm mook dund benn fan ak benn guddeeyam wala dund lenn ci genn wàllu fan ak genn wàllu guddeeyam yawaddu ahaduhum yawaddu ahaduhum law yuammaru alfa sanatin wa ma huwa bi muzaxzixihi min alcadaabi an yuammar maanaa dund fi dund gu baax rekk am solo bu fi doomu aadama dundee junniy at bu fi jógee ci mbugalum yàlla la jëm junne at yooyu dana mujj soppeeku lu gën a tuuti ab bés bu ko comparé la muy fekki te sax ci beneen misaal ku nekk ci ñun ba mu juddoog léegi buy xool day mel ni démb la te boo moytuwul am na ñeent fukki at boo moytuwul am na fanweeri at boo moytuwul am na juróom fukki at boo moytuwul am na juróom-ñaar fukki at waaye buy xool ci ginnaawam day mel ni démb la fi newoon bu dee dikkee nag day mel ni mosu fee nekkati mosu fee nekk sax labisnaa yawman aw ba'da yawm fas'al qaala in labistum illaa qalilan law annakum kuntum ta'lamun fa aychuka fiha alfa aamin wa yanqadi ka aychika fiha bacda yawmin wa leylati kon nag alayka bima tujza alayhi min attuqaa fa innaka fi lahwin azimin wa gaflati alayka maa ngi lay dénk nga nekk alayka nekkal ta nga taqoo alayka taqoowal bima la nga xam ne tujza alayhi dañ la ci fay min attuqaa ci ragal yàlla fa innaka naka yow yëgal ne fii lahwin yaa ngi fo azimin mu mag wa xaflatin akum càggante fii lahwin yaa ngi fo azimin mu mag wa xaflatin ak càggante génn ci nag te nga yittewoo loo xam ne buñ la ca fayee ëllëg nga bég te mooy ragal yàlla ne na intahal garadu minha liñ jublu woon liñ soxla woon ci xasida ji jeex na wa hiya aktharu xasida ji nag ëpp na lii wa innama ataytu biha fi hadha al mahalli li annaha munasibatun lahu dama ko dikke ci bërëb bi ndax dafa askana liñ doon waxtaane wa hiya moom xasida fi gaayati l waaw ngi ci dayop waare wa tadkirati ak fàttale nasalullaha taala ñu ngi ñaan yàlla an yanfaana biha mu jëriñu ci xasida fi dunya ci àdduna wal axirati ak alaxira amin waaw xasida ju ama am solo la di ñu fàttali àdduna ni mu ñàkkee solo jamono yi ñu toll ku nekk ci ñun dégg nga ku faatu mbaa nga xam ko ci say mbokk mbaa ci ñi jege mbaa ci say xarit démb rek ñu ngi tàggee mbokk yu baax a baax a baax yuñ xam te xamuñ kañ lañ ciy topp ñun te daañ ci topp nag boo gisee jamono biin yu bari ragal feebar ragal feebar ragal feebar te xamuñ ne bu dik dikkee ku feebar dee ku feebarul dee kenn ci suñu soppe ñu tàggee ñu ko démb te moom tiitaange ji ko tiitalkat moo di dafa gis jëkkër ji di sëqat di sëqat comme télé yi ni ñu tiitalee nit ñi ak politiciens yeeg médecins yi mu foog ne jëkkër ji coronavirus moo ko jot tiitaange goog nag yéegal tension te comme dafa am jabet te tension bu yéeg jabet looloo sabab faatoom gannaaw dogalu yàlla moo tax nañu teg tiitaange yi ci suuf xam ne kenn du dee te sa dig jotut te jëkkër ji kat buñ ko testé dafa négatif waaye télé yi yore na nit ñi àq journal yore na nit ñi njiit yi tamit surtout njiitu diine yi daw bàyyi jàkk yi yoreel nañ nit ñi àq nañu dellu ci jàkk yi te organiser ko nañu dellu ci jàkk yi te organise ko nañu dellu ci jàkk yi te organiser ko jàkk duñ ko tëj tànk lu dul a ngi ubbi jàkk duñ ko tëj tànk lu dul jàkkaa ngi ubbi dañ ko organiser nag néewal ñi fay teew ak ilimaan te ñu sàmm wanteeg cet sàmmanteeg social distancing waaye philosophie peur bi ñu def ci nit yi nañ ko dindi nañ ko dindi yàlla yore jaam ñi yàlla yore jaam ñi toujours ma wax ko ne man li ma gën a ragal du feebar bi de feebar bi sax ragaluma ko parce que jaamu yàlla la ni man lima ragal mooy noonu yàlla yi jaaree ci feebar ba dindi ngëm yàlla ci xolu jaamu yàlla yi laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah weeru koor yu yegsi na te daanaka doo dégg kenn waxtaane weeru koor ñëpp a ngi ci feebar bi kat asalullah alaafiya nee na wa yuqaalu inna awwala maa yara ahlul jannati fi mu ne dañuy nettali ne aljanna la ñuy njëkk gis buñ duggee aljanna ñu bind ko ci seen kanam وهذا السرور بتلك الكروب وهذا النعيم بذاك التعب وهذا السرور mbégte mile بتلك الكروب moo wecce njàqare ak mettit yële ngeen doon dund ci àdduna wa hada sururu bi tilka alkurub wa hada alnaimu bi daka taab yàlla bu ñomb wa hada surooru mbigte mii ngeen nekke bi tilkal kurub moo wéccee njaqare ya ngeen nekkee woon àdduna kon ñu xam ne àdduna këru njaqare la wa hada naimu xéwal gii di aljanna bi dhaka taab moo wéccee coono yële moo wéccee coono ba ngeen doon sonn ci àdduna la raxatan qattu illa qablaha taabu اتعب تجد راحة تنجيك من تعب لا راحة قط إلا قبلها تعب اتعب تجد راحة تنجيك من تعب لا راحة déet noflaay xattu mukk illa qablaha lu dul jiitu na ko taabun coona kon nag itaab sonnal soo ko defee rek tajid raxatan daa fekk noflaay tun jiika góg dana la muccal min taabin ci coono amul noflaay gu coono dul jiitu waaye nag amul coono gu nit di sonn sonn te am yitte lu dul coono ga dana jur noflaay لا راحة قط إلا قبلها تعب إذا تعب تجد راحة تنجيك من تعب bayt yu rafet la nee ñu waa aljanna loolu la ñuy njëkk a gis ci seen kanam yàlla nañ ca bokk yaa rabbi ca bokk ca sette say dëkk ak yenentu sallallahu alayhi wa sallam dëkk ak cheikh sayidi ahmad tijaani radiallahu anhu nee na wa yuqaalu inna manazila aljannati tuta ala xasabi al amali fi dunya mu ne wa yuqaalu dañuy nettali ne inna manazil al jannati këri aljanna yi wala inna manazil al jannati level levelu aljanna yi tuuta dañ leen di joxe ala xasabi al amali ci kem jëf yi fi dunya ci àdduna àdduna darajaay aljanna dañ koy jox jaami kem seen jëf rek ci àdduna man kathara képp ku bëri loon jëf ju baax kuthira lahu ñu bëril ñeel ko wa man qallala képp ku néewaloon jëf ju baax qullila lahu ñu néewal ñeel ko maanaam ku bërile fii bërile fële ku néewal fi gën a néewle fële wal iyaadu billah am na mbokk mu ne ma man werendaawe sax baax na ma ne ko ah xam naa de tabarkalla wala rëcci àdduna tukki wa qad yuti subhanahu liman shaa min ibadihi fi daari karamatihi mu ne normal looloo waaye nag teewul wa qad yuti amaana bu joxe te mooy dana am subhanahu yàlla suñu borom mi ci tur yu rafet yi te subhanahu tudd na ma sellam amaan na bu joxe liman sha ku ko neex mi ne ibaadi ci jaamam yi fii daari karamatihi ci këru terangaam ji ki aljanna maa loo xam ne laa yaxturu du toq bil baali ci xel fadlan mu ngir ngëneel min hugu tuggee ci moom wa karaman ak tedd nga yàlla ci tedd ngaam ak ci la mag baaxam dana jox jaam bi ci aljanna loo xam ne du toq ci xol maanaam xel mënu koo dëj waaw ci bëri ak ci waaw te du dépendre ci jëfam sax aha id huwa alfailu almuxtaar ndax moom mooy ki nga xam ne mooy def lu ko neex wala yusalu amma yafaal te kenn du ko laaj pourquoi nga def li nga def jalla wa ala moom màgg te kawe qala taala wa tilka aljannatu allati uritumaha bima kuntum taamaluun wa tilkal jannatu aljanna joole lati ji nga xam ne uristumuhaa doon loon nañ leen ko bima kuntum ci sababi li ngeen nekkoon taamaloona di jëf wa qaala taala waaw joojong ci suratu uh, zuxruf aha laaye juróom ñaar fukk ak ñaar bu dee ci suratu mariama laaye juróom benn fukk ak ñett mu ne til wa til wa qaala taala tilkal jannatu allati nuurisu min ibadina man kaana taqiya tilkal jannatu aljanna joole lati mooy ji nga xam ne nuurisu dañ koy dañ koy dañuy donnloo min ibadina dañ koy donnloo min ibadina ci suñu jaañ wi man koo xam ne kaana nekkoon na taqiyan di aja ragal yàlla a aljanna mbaaxu yàlla la waaye yàlla wane ne ne sabab war na ngir boroom dugg ca donte sabab yooya kese-kese bu àndul ak yërmande yàlla borom du dugg wala yërmande yàlla sax mooy cause sabab yooyu le tabaraka wa taala aha koy déggee ca waxi yonantu ba sallallahu alayhi wa sallam kenn dem aljanna ci jëfam ñu ne ko ba ci yow mu ne ba ci man illaa an yataxammadani llahu bi rahmati waaye nag boo nekkee ci sabab yi rek xamal ne siiñu taxammudullahi laka bi rahmatihi la waaw anna allaha taxammadaka bi rahmatihi an jacalaka taamal amalan saalixan aha ah léegi nag lu tax kon mu ne liñ jëfa tax te yërmandeem rek a cay dugale yërmandeem jëf ja moo waral jëf ja te itamit boo bëggee teraanga neex ci sa gan da nga naan ko lekkal yaa ko moom lekkal yaa ko moom te pourtant yow yaa ko ko yow ko indil ya def lépp waaye yaa naan ko lekkal yaa ko moom pour mu bañ a yëg ne yëfu jàmbur lay lekk yàlla it noonu lay teralee waa aljanna lekk leen waaw a ko moom yéen a ko jëf seen jëfa te yërmandeem a kat waaye bëggul ñu gene wu tabaraka wa taala walaayaatu laay fi hada maana ci wax ci maana mi le kathiratun bari nañ lool mu ne wa kadalika man araada tariqa al qawmi naka noonu képp koo xam ne bëgg na yoonu nitu yàlla yi fa innahu naka kóolka fa innahu naka lii mbir tey mbir laa yatawassalu du mën a yegg ila chammi raihatin jëm ci xeeñcu xet minhu ci yoonu nitu yàlla yi illa bil jiddi ndere ci góor góorlu wala azmi ak dogu aha wolof nag mooy wax góorgóorlu waaye jigéen jigéen lu bu dee ci jigéen la maanaam farlu rek farlu ilaa bil jiddi dee ci farlu wal azm ak dogu waaw wa tarkil malufaati ak bàyyi yi ñu miin yi wal mustahsanaati ak yi ñu rafetlu yi yi nga xam ne bakkan miin na ko te rafetlu ko waaye xaqiqa rafetluwu ko loo ko miin miin loo ko lu rafetlu fokk nga gedd ko bo bëggee fóon Euh, yoonu nitu yàlla ya bu bëggee yegg fa ñu yegg mhm. waqati alalaaiqi ak dagg way aju yi wal awaiqi ak way gàllankoor yi yi nga xam ne ñoo aju ci xol bi ci yu neex ak ay xijaab ak yi gàllankoor xol ak bakkan ba du mën a dagg yoon wa yépp nga dagg sànni ngir nga mën a dagg yoon woowa pour joti ñooñee wal iraadi ak lu dul ci dëddu amma si wallahi lu dul yàlla fokk xol bi dëddu lu dul yàlla kama qaala ni ko waxee cheikhu zarruq waaw góor gu màgg ga cheikh zarruq radiallahu anhu borom qawaidu tasawuf mu ngi dund diggante 846 ba 899 hijriya maanaam gannaaw ga daay yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam lan la cheikh zarruq wax radiallahu anhu mu ne huwa alla tara alla tara fi lwujudi illa anta wa rabbuk waaw tara mu ne huwa yoon wa huwa joti yoon wa huwa moom alla tara mooy nga baña gis fil wujudi ci am gi illa anta ludul yow wa rabbuka ak sa borom yow rekk ngay gis jam nga boo xam ne amuloo kenn ko amal ak affaire ku dul yàlla yow gisuloo kenn ci àdduna bi sama borom rek nga gis te loolu mooy boo nee ci yoon wi kat ndax ki yegg moom dootul gisati boromam dootul gisati boppam laa bëgg wax ku yegg dootul gisati boppam fa ma hamma illa la laa shay'a ghayruhu fa ma hamma mawsulun wala hamma baa'inu waaw mhm. falaa tara illa alxaqa bilxaqi fi fala tara illa alxaqa fi lxaqi bilxaqi ndax yow nekkatoo mu ne wasu la laaj nañ al junayd imam junayd miñ daan woowee cheikhu taifatayni wa mufti wa mufti lfariqayni moo doon sëriñu ñaari kuréel yi di mufti ñaari groupe yi gurubu ñooñ sharia ak gurubu ñooñ xaqiqa ni meloon ci fiqhu noonu la meloon ci tasawuf ni mu jiitee fii noonu la jiitee woon fële laaj nañ ko kayfa sabilu ila ilal inqitaa'i ilallahi taala naka la jaam di def ba daggu ba daggu jëm ci yàlla tabaraka wa taala fa qaala mu ne bi tawbatin tuzilu lisrar tuub goo xam ne dafay dëñal nuur dafay dëñal nuur ci bàkkaar dafay dëñal continuité ci bàkkaar wa xawfin ak ragal goo xam ne yuzilu dafay dëñal taswiifa bu suba ak gannaaw suba taswiif mooy yéexee bu subaa ma def nangam wala bu gannaaw subaa su ma màggee damay bàyyi ba am at sàngam soog a aji màkk soog a tuub soog a nangam góor ga noon nañu fa innahu min alaamati shaqa imam Junayd nee na ki bëgg a dogg jëm ci yàlla fokk tuub tuub goo xam ne dana dëñal ci moom continuité continuer di def bàkkaar ragal goo xam ne dana def ci xolam yàlla dana def ci xolam teewlu dana ko ragalloo ba dootul xaaree dara ëllëg war a jaay naag yaakaar goo xam ne yabaasu ala masaliki l amal ala amali ci sóobuwaayu jëf yi waaw wa ihanati nafsi ak doodal bakkan bi qurbiha ci jege min al ajali ci dig ba toujours ngay fàttali bakkan bi ne ko léeg nga dee te it yow doo dara wa budiha ak soril ko amali ci mébét mébét yi muy false hopes xamal ko ne ko yii dara ba ko te jëm ci tabaraka wa taala lahu ñu laaj ko bi maada ci lan nag yasilu lay yegg al abdu jàmbi ila haada ci niveau bi qaala bi qalbin mufradin wala bi qalbin mufridin ci xol boo xam ne dafa wéetal yàlla aji bennal la fii nekk na ca tawxidun mujarradun tawxid goo xam ne gu ñu boccil la wala tawxidun mujarridun tawxid goo xam ne dafay boccil maanaam dafay génne ci xol bi ludut kenn yàlla gi tabaraka wa taala wax na abu said abu saidin il xarraazu abu said góor gu magga muhammad abu said Ahmed ibn Ahmed ibn Isa al Baghdadi al Kharraz mi ngi faatu deux cent soixante ñii ne deux cent ni ko borom eh, alaamu nubala borom siratul alaami nubala waxee Zahabi radiallahu anhu Abu Saïd al Kharraz ah, am na ñuy wax ne sax moo njëkk a waxee fanaa ak baqaaw it lu jara laajte waat la lu jar a gëstu la ndax fooguma ko abu said al-xarraz radiallahu anhu nee na almaarifatu tati l qalba min wajhayni nee na xam yàlla dana dikkal xol bi ci ñaari wàll ci ñaari wet ci ñaari anam benn min ayni l judu min ayni l juudi wa badli l majhudi min ayni l juudi ci jëmmi tabeek yàlla gi ci sew ndeek tabeek yàlla gi wa badlil majhuudi ak yulli coono maanaam yàlla mooy maye gaa xam yàlla waaye du ko may ku ko wutut nag ñaare fa ida alima dem xam na laahu yàlla sidqa dëggu min abdihi ci jaamam bi fataha alayhi mu ubbil ko min xazaayini xaybihi ndam bi kumpam wa jaalahu mu def ko min ahli qurbihi ci ñooñ jegeem wa xisbihi ak kurélam qaala taala sama borom wax na ci suratul ankabuuti aya 69 walladina jahaduu fiina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha la maa almuxsinina walladina gaa ñi nga xam ne jahadu farlu nañ fii naa ci ñun lanahdiyannahum dañ leen wan subulana suñu yoon waaleykum salaam wa rahmatullah wa inna ne yàlla la maal muxsinina wa inna allaha dëgg-dëgg yàlla la maal muxsinina mi ngi ànd ak way rafetali amin ya rab nee ñi nga xam ne góorgóorlu nañ danaa leen wan yoon gis nga imaam Junayd dégg naa daan na wax ne suñ yoon wii suñ yoon wii suñ xam-xam bii sàkku du ko maye waaye duñ ko may ku ko sàkkuwut kon nag fokk borom bi sakku fokk jaam bi sàkku te rafetal sakku ga te dëggu ca bu ko defee borom bi ubbil ko waaw am na yeneen yoon yu muy maye nag waaye wii mooy yoon wu normal bi nim ñu ko jàngalee ca suratu shura yajtabi ilayhi man yasha waaw ahlul ittibaa bari wuñ wa di ilayhim man bu ñoo gën a bari yàlla nañu yàlla boole ci ahlul ba te boole ñu it ci ñi nga xam ne duñ sukkandiku rek rek rek ci ittibaawo gi ba tax ñu yonjax ba tax ñu yafus waaye fuñ toll it ñu ngi nekk ci inaabatu ak mujahadatu lillahi tabaraka wa taala wa fillahi tabaraka wa taala wa billahi tabaraka wa taala naktafi bi hada alqadri insha allah wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazimi amin